par rapport eh, attaques yi Omar Bassoum Touré attaqué hmm. seen point de presse bi hmm. mu ne sa taxawaay daal rafetlu ko en tant que membre haut conseil dialogue social hmm. mu ne woon nga waroon taxawaay waaye ni nga taxawee daal rafetlu ko daal parce que donc xam nga euh, ñàkk xam lu mu waral bari na parce que bu directeur général réunion bi mu délégué man fekkewuma de dañ ma nettali rek bi leen directeur ressources humaines ne dem leen une sas dafa tudd sax dafa tudd sax daf ne dem leen ci Pape Diallo euh, comme ça mu rassembler leen yéen ñëpp ngeen mën am benn liste ngeen def seen investiture bañ a xar syndicat bi ñaar mu ton mu ton tontu ko donc Pape Diallo est disqualifié. Pour nous, il ne peut pas agir dans le sens d'établir une liste des candidats aux élections des délégués du personnel. C'est au niveau de la centrale, ce n'est pas le syndicat de base. Donc nous, devons ñu wax Pape Diallo Moi, tontu loolu jigal ah nit ki nag nous avons fait conseil syndical national nous comme nous droit permettre de tenir cette assemblée générale un conseil syndical national Nous sommes, ñu dañu ciy boole di wax ne Pape Diallo moo jaxase entreprise bi moo nangam nangam te moom bi ñu defee seen euh, intersyndical bi moom ak euh, keneen ki mu àndal muy góor googu mu àndal yàdd waaw bëgguma sax tuddi tudd turam quoi parce que kooku pour moi, euh, il n'est plus, pas important de, le situer. Parce que demain, non, non, il n'est plus. il a été destitué par une pétition des travailleurs. Les travailleurs, ils Nous c'est l'organisation, c'est pas la personne, c'est pas la relation entre Pape Diallo Omar Touré. Moi, c'est l'intérêt de l'organisation. travailleurs, travailleurs, ils voulaient un nous, ils ont fait. majorité, ils étaient prêts à quitter l'insas est-ce que ñun dañuy pour ben nit les yeux d'une personne ou le ñaari nit deux les trois tondus nous ñun ñu majorité yi pour quelle raison donc majorité bi fu mu ñun fofu lañu and majorité bi c'est avec Famara vieux Famara Ndiaye ndan djouf et autres buñu bëggé nak ñom ñu ne rassemblement lu ñu bëgg ñu ñu ñu concilier leen ensemble dañu nongo référé wu ci centrale bi c'est le premier acte deuxième acte de trahison et c'est le plus humiliant Et j'ai d'humilier même notre centrale Si je amul le man ne répliquer c'est parce que dafa am lu def ko une deuxième fois réunion Moi, réunion. Moi, avec euh, King léegi ak secrétaire général Santé, la Lamine Fall ak adjoint Demba Seck ñu encore direction des ressources humaines pour nous voir, directeur des ressources humaines répété waat la même chose non Lamine Fall sax moo ni ñun bu ñu amoon problème yu mel nii dañuy dem suñu central waxtaane ko fa yaa ngi dégg moom kooku ngay wax yàdd mu ne ca tonnet mu ne ko Mademba Sock est disqualifié amatul légitimité man suis wax lolu man sama secrétaire général national man suis le ko seetaan man Je ñu répéter la même chose disqualifier central centrale ñom ñu bëgg lan disqualifier sama centrale mo disqualifier donc à partir de ce moment pour man ils n'ont plus voix au chapitre majorité bi fuma ñun la la position de l'UNSAS est avec la majorité donc affaire bi du question dialogue social problème est naka gérer syndicat d'entreprise, syndicat de base bi nekk ci biir entreprise bi bañ ko perte sinon ñun bu ñu fenn bu ñu ñoo ñu dem aller ils sont minoritaires ils sont 5 personnes nous avons laissé 80 personnes qui ont signé la pétition le 13 décembre 2019 ñu def une procédure de renouvellement édictée par les dispositions de l'article L8 alinéa 9 du code du travail l'article 812 814 815 Lolo, c'est les prérogatives du juge dispositif du code du travail c'est les prérogatives de l'inspection du travail qui a fait son enquête préliminaire de rapport d'enquête na légui Famara ibrahim Famara vieux Famara Ndiaye secrétaire général donc c'est le rapport de l'inspecteur du travail man du man du c'est pas Pape Diallo c'est pas Madame c'est le rapport de l'inspecteur du travail moo moo def seen enquête mu syndicat bi def une modification yi personnel bi nga xam ni moo administration ak direction syndicat bi vieux Famara Ndiaye vieux Famara Ndiaye moo remplacé de Yad qui a été destitué à la suite d'une pétition des travailleurs. ok ñoom décision bi nangu parce que nous keroog bi inspection du travail dañ inspecteur bi daf leen wax Yad mooy mooy mooy secrétaire inspecteur nee wax ko ñom duñ la woon mukk inspecteur bi bind. te man dina la won inspecteur bi bind. xamna naa loolu ma leer. duñ la won mu fi inspecteur bi bind wax ni Daouda Yade te man dina la won fi inspecteur bi inspecteur bi bind. te inspecteur bi mënul dind waxu juge quand est-ce qu'on a vu une autorité administrative se placer au-dessus d'une décision de justice loolu amul loolu amul xana kay c'est le monde à l'envers loolu du am li am moy plainte le président du tribunal de grande instance qu'il rek la procédure entamée par les euh, vieux femmes Ndiaye et consorts pour le renouvellement du bureau du syndicat syndicat ils sont membres ils sont membres ils sont militants dans le syndicat syndicat ils appartiennent au syndicat mais la direction syndicale bi direction syndicale bi dafa modifier aussi le texte syndical, bi tamit dañ modifier donc à partir de ce moment ils ne peuvent plus parler ni agir au nom du syndicat mais ils peuvent rester militants du syndicat maintenant s'ils reconnaissent l'UNSAS ils ñoo ko waxoon ñoo waxoon ci bureau directeur bi wax loolu weddi bu ñu bindee ñoom reconnaître ni kat ñun ci UNSAS lañu bok bu boobaa UNSAS dina leen wo woo njaboot gi yëpp ñoo defar defar leen mais tant que nous avons en présence de Lamine Fall qui est secrétaire général d'une autre organisation syndicale sœur devant le directeur Pape Djigal madame et ak Pape une folli tant que wax man je ne les reconnais pas en tant que membre du syndicat ou de Nous merci beaucoup.